xaw na ci jamale ko ci euh, boroom xam-xam yi ak bindkat yi ak ñi nga xamante ni dañuy bëgg di léegi-léegi di génn di def ay sorte ci réseaux sociaux yi di wax ne dañuy leeral wala dañuy tontu ci mbiru bàyyi te seen àlliwa soriwut ñooñu mu ngi leen di dànkaafu di wax ne képp koo xamante ni daal bëgg ngaa tontu te jekk woo maanaam jàngoo sa àlli wa soriwut liñ lay ñaan mooy nga làqutu nga noppi nga toog ñi nga xam ne am neen xam-xam mën a tontu ñi lañ soxla ñu génn ndax li ñuy wax mu nekk wax joo xamante ni dafay dëppoo ak alquran ak sunna te du nekk waxu xuloo du nekk waxu xas du nekk waxu saaga du nekku du nekk waxu par parparloo loolu lañ soxla ci képp koo xamante ni yaa ngi ci xadara bi bëgg défendre hadra bi bu sa àlli wa sarut ngel la na nga bàyyi tontu bi am na ñoo xamanteni ñu ngi fi ay borom xam-xam leen waxtu tontu leen jotté rek di leen génn pour tontu leen loolu bokk na ci li nga xamanteni leral na ko kon ñi ngi o ba tey ki nga xamanteni mom mo ñu déssé ci bésu tay ji moy al ustaad Mouhamed al Amin Kouta Mouhamed Lamine Kouta nak pay bi xam na ko xadara bi xam neen ko ci bëgg xam-xamam ci jàng jàngale mu maîtriser li nga xamante ni moom mooy langue arab ci langue bi nga xamante ni maanaam moom la ñuy wax mbooleem lu aju ci al mutun al lugawiya lu ko dalee ci bu ñuy jàng fii ci daara ji lu ko dalee ci ibnu di ba luga yi nga xamante ni dana àgg ci yeneen réew yi lu mel ni euh, Mauritanie waaye léegi sax Sénégal ñu ngi koy commencé jàngale mooy al muallaqaat yooyu yëpp jàng na ko di ko jàngale waaye ginnaaw loolu mu gëstu ci fayda bi gëstu ci li nga xamante ni mu aju ci xam-xamu pay bi ba géeju ci doog génn nag ci beneen monde pour jàngale pour leeral loolu moom nag mu ngi génne ci kulliyat al aadab al arabiya al mutazawija bi asrayi al xaadiri al gaaibi loolu moom mooy taxasusam ñu jox ko nag tem boo xamante ni moom mooy al aqidatu al islamiya wa taqaddumu taqani al ilmi moom la war a def waxtaanam mooy ci pas-pasu l'islam ak niveau technologie bi nga xamanteni amna tay ci monde bi lolu mom moy temam pour mu waxtan jema comparer li nga xamanteni mom lay depo ak alquran ak sunna ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq comme ni ma ko waxee moom it bindkat la shaacir la adib la muthaqqaf la ku bëgg bàyyi la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 سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى به وبهم إلى يوم الدين في ليلة المولد الأسمى وصحرته يا أمة سعدت بالمصطفى قولوا قولوا وتيهوا على الأكوان وافتخروا فقولكم لمكان الصدق مقبول أهلا بمولد خير العالم نوما له على الكل تسييد وتمويل بمولد الصفوة الأعلى الرسول إلى كل الوجود وما للحق تبديله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة أبناء السادة واللجنة المنظمة على قمتها أستاذنا وأخونا الكريم الشيخ أحمد بكار حاج عمر ما عبده ومن بميمنته وميسرته من أخويه النجيبين الأكرمين سيدي الشيخ أبو بكر الشيخ الحاج عبد الله إبراهيم يس سيدي سير علي الشيخ الحاج عبد الله إبراهيم يس ومن معكم من الحضور نرحب بالجميع ونهنئ الجميع على هذا اللقاء السنوي وعلى هذا المنتدى المبارك الذي كلنا ولسان حاله يدندن حول حبه الدفوق من حضرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم شرف تتابع كابرا عن كابر كالرمح أنبوبا على أنبوب وكذا النجابة لا يكون تمامها لنجيب قوم ليس بابن نجيب موضوع حديثنا هي العقيدة الإسلامية والتقدم التقني والعلمي دراسة حول كتاب مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه الحجة البالغة في كون إذاعة القرآن في راديو سائغة هي العقيدة الإسلامية الصمحة بمنزلة أساس القويم السليم الذي لا إلا عليه يقوم هذا الدين الحنيف والفطرة التي فطر الناس عليها ولا تصح أو تزكو الأعمال إلا بها وعليها فالطائفة المتمسكة بها هي الناجية الناصرة ظاهرة التي لا يضرها من خذلها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ما هم عليه والمراد بها الإيمان الجازم بربوبيته الحاسم الحامل بكل معاني عبوديته سبحانه وتعالى وبكل ما أجمع عليه السلف الصالح من التسليم التام العام لله وحده والاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كل الرسل من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى خاتمهم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بها صحيحة راسخة الأوتاد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني والذي يحمل حملها الحقيقية لا بد أن تؤثر في سلوكه وتوجيهاته وقيمه إذ هي العمود الفقري لكافة أوجه مناحص الحياة ولئن صح الدفاع عن شيء بصلابة فالاستماتة في سبيله بكل جد والعمل من أجله بكل قوة فلا يكون ذلك الشيء إلا بالعقيدة الصحيحة وإذا عرفنا ذلك أدركنا ضرورة اختيار نظرة كونية قادرة على الوقوف بوجه التيارات المعاكسة في هذا العصر والخضم من الويلات ولقد واجهت العقيدة الإسلامية على ممر العصور شكوكا واعتراضات ومناقشات تهدف إلى تكذيب هذه العقيدة سواء فيما يتعلق بالإيمان بالغيب وما وراء الطبيعة ولقد تقدم مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه تقدما عجيبا رائعا تفاجئك في كل المحطات من حياته المباركة مليئة بكل المقاييس بروائع الإتقان وبدايا الإحسان على زمانه الذي هو عين مكانه ومكانه الذي هو كنه زمانه وزماني في مك... فمكاني في زماني وزماني في مكاني فكان رضي الله عنه بإذنه الصريح ولسان قلبه الفسيح الفصيح وجراءته الخارقة يرد عن الملوثين المدنثين لكرامة هذه الصمحة البيضاء بحكمة وموعظة حسنة انظر إلى كتابه رفع الملام الذي تصدى له وتحدى به علماء عصره ولو بقلامة من أضعاف أحاديث فلم يرد عليه إلا بتافهات هزيلات هو عنها بمعزل وإلى كتابه كشف الألباس الذي انخضعت له أرقب الكم للجلة وانقلب به ظهر المجن بعدما كان الوضع ضيقا حرجا كأنما يصعد فيه المرء إلى سماء التهلكة لفرط بعده عن الله سبحانه وتعالى أخذت به رضي الله عنه أرض القلوب والأرواح ذخرفها وزينت بمراسلتها مع حضرة علام الغيوب تأمل سطور الكائنات فإنها من الملئ الأعلى إليك رسائل وإلى كتابه الحجة البالغة الذي نحن في صدده مولو مما أن نبدي زيارة نبدي تنك سما وخجيكي نياري منت بس كجوتا بيأغن تدومن لني خار وي موضوع بين ما جوخ بور مسار روكو يالا باخنا لون تنك لبا منجي اي لوخو كون جرومي منت يو أمرك بور تالل كو دفاي باخ di eh, taxaw benn minute ci pas-pasab lislaam al aqidatu lislaamiya bu wér nga xam ne mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaa nga xam ne suñ mag ñu baax ñi yépp ci lañ nose woon ci lañ tënku woon di jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell gu rafet comme ni la ko sa borom digalee jaarale ci min euh, minhaaj bi nga xam ne moom lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegal ñu rasdu ko bañ euh, jaar ci yoonu ittibaa lal ibtidaa doo fenk waaye tim du luñ fenk yëpp gannaaw yonent bi dafa bon da xool bàyyi ni mu ko méngalee ak adduna bi tey ni mu doxee ci téere boobu nga xam ne mooy alxujjatul baaliga nga xam ne mi ngi ko bindoon 1900 52 mu tolok ajam ajung makam gunya ñettelam mu dem makka jar nigeria fekk fa pas ke que bobu la mm, am bindukat bu bawah bo mana man nañu wax ne dafa fakastalu rek dal di dem sah bay hefer lo ñi nga xamne dañuy jël rojo diko utiliser ci ibadat bawah xam ci jakka ja wala ci ya. ne kep dem na sax ba yegg ci la loola coow la e, ubale Nigeria bàyyi di aji aju ñetteelam 1952 gannaaw 37 51 52 di ñetteelu ajam mu jaar Nigeria fekk fa coow la muy coow loo xam ne bu ci sotti ndoxam mu sedd mii ji téere bi mën ngaa wax ne sax mënoon naa taal Nigeria bàyyi e, mu ne e, ci aju ñaareelam googu ma ne nga xamne ci la doon waxé né ma ngi jog di delu gannaaw buma ajé suma aj ak l'islam gu ñëk ma ngi delu wat suma ñaarelu aj ngir wutu minde fi an wil imarat li bayt khaliqi bil hajj naiban an khalaiq mu nigeria fekk fa ciow la buru kanu al hajj muhammad sanusi nga xamne mom la bayam دجاونا شيخ ابراهيم يسر رضي الله عنه چا اجم گنجكوگا دي عبد الله بن عباس بايرو چولي جوكفا مورسا وار باي تومبي جامونو جوجا باي نيت فان يم فا ديف موم لاج موجو جوخ درس تفسير با موكو دون جانغالي ميم درس سيره با تي تيري بقاض العياد الشفاء للتعريف بحقوق المصطفى ñetti fan ya fa bàyyi def bàyyi méngoo dar su tafsir ba ak eh, di jàngale ci chifa boobu tombeeg coow li am bàyyi mu ne ma tontu tontu bu gàtt ndax dama ne ci tukki ci benn risaala boo xam ne indi eh, na ko ci téere bi mooy première partie bi nga xam ne ci la appuyé mu répliquer pour mën a tontu kooku waaye xoolal àdduna ni muy demee ba koo ko doon contesté loolu sax ba dem di yéeféerloo ñi nga xam ne dañuy utiliser rajo mujj na doomam mujj nekk ambassadeur Nigéria ca Soudan baay dem Soudan ba doomi kooku mujj na jàpp tariqa ci baay ba baay lijaazaal ko ci lijaaza boo xam ne al allaama al ustaaz Ibrahim Mahmoud Diop moo ko ko bindal ci loxoom alors nga xool gis ma ne euh, mu tontu tontu bu gàtt ne dafa ne ci tukki waaye bi loolu génnee bi tontu bi demee moom kooka moom itamit mu répliqué aat indiaat beneen tontu ci baay baay mu ne ma tontuwaat ko man tamit muy ñaareelu yoon yëpp mi ngi ne ci ñaareelu tontu bi sax yaa ngi dégg mu ne dama ne ci tukki te samay téere dafa ma sori moo tax te lam la wax ne samay téere daf ma sori ma tont ko li loolu rek da nga gis ku ne ci ay téereem sax te doo ko mën a tontu tontu bu demee noonu bim ñibsee nag wax ja dakkut mu yaatal ko ba nga xam ne moo mujj tey nekk téere bi nga xam ne yaakaar naa ku tabax jumaa takkoo rajo sax bala nga ubbi da ngay takk rajo ba pare xolal jamono tey ni mu évolué àdduna ni mu doxee ba ba ko bàyyi di wax démb kenn mënu ko woon a dégg mais tey àdduna ak xam-xam ci niveau technologie bi dem na ba may ko raison may ko dégg te boo liiree téere boobu rek da ngay xam ne kii ndigal la amoon ci bind daaye la boo xam ne bokut ak ñi nga xamne dañoo nekkon di oté waye mom daf doon oté ci ndigal ndax waxon na ne ana la taharraku illa an idhnin idhnu sarih boobu yàlla defon mu ànd ak mom da ngay gis mu diko barkelal fi kulli mahattati hayatihi bu téré bi ak benen buru boobu dang koy gis falaw wit tasal waqtu la laxtalata xaabilu baxtina bi naabili sardina lakin ما لا يمكن كله لا يترك كله مرة أخرى عليه الصلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام و... ورحمة الله نشكر الأستاذ محمد أمين كوتا محاضرته واختياره لهذا العنوان وربطه العقيدة الإسلامية بالتقدم التقني والعلمي واختياره كتاب الشيخ الحجة البالغة في كون إذاعة القرآن بالراديو السائغة وهذا الكتاب آه، كان درسا عظيما للمشتغلين بالفقه الإسلامي أن يدرسوا الدين من خلال الدين لا من خلال الواقع أن لا يجعلوا الواقع يسير بهم ويشكل تصوراتهم بل يجب أن تكون تصوراتهم جاهزة ثم إذا جاء الواقع عرض على ما عقلوا من الدين وما فهموه فالناس أول أمر الراديو لما جاء كان عهدوه جهازا تبث فيه الأغاني و... فرأوه جهازا للخلاعة والمجون فنفروا آه، من أن يذاع فيه القرآن ولو فكروا قليلا لرأوا أن الألسنة التي يقرأون بها القرآن هي الألسنة ذاتها التي يغتابون بها ويكذبون بها فلا تعلق للآلة بهذا فهذا الآن قد يكون الأمر بديهي للكثير من الناس ولكنه كان مبحثا وذا جدل وخصام آنذاك وبت فيه الشيخ بهذا البحث فالعقيدة الإسلامية ومعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه هو المانع والمعطي فمن تحقق هذا وتيقنه لم يفجأه شيء مما قد ينشأ من مما يخلق الله مما لم نكن نعلم بل يجده آه، جاهزا فلا تعبث بعقيدته هذه التطورات ولا هذه المستجدات وفي ختام جلستنا هذه المباركة نجدد الشكر للمحاضرين فالمحاضر قد يتعب في تجهيز بحثه أياما أو حتى أسابيع ثم نحن نلزمه بدقائق محدودة أن يعرض بإيجاز آه، حصيلة آه، ما أتعب نفسه فيه أياما ولكن هذا هو طبيعة الندوات فالندوات ليست آه، للتدريس وإنما للعرض انما يعرض الانسان آه،